ci yóbbanteel <laughs> laaj ndax yéene bi dañ koy biralam déet ci sangu farata bi ni muy wax ak boo ko fàttee ak yéene bi lan la oui parce que boo dee julli di nga ne allahumma inni nawaytu ilal kabi xastil faridatil wu doohi beek yooyu yëpp mais yow war nga joxe àllarba de ak jàng nga ko <laughs> bu fàtte duggee yéene mhm. bépp xeetu jaamu yàlla mhm. yéene farata ci mhm. bépp xeetu jaamu bu dee njàpp bu dee njàpp xam nga foo yéene. raxasal loxo bi ñetti yoon. bul yéenee gum de bii ñetti yoon. galax ne ñetti yoon. sarax ne ñetti yoon booy sëlmu nag ci nga yéene lu tax. ah parce que yéene farata la. deux si wa àttanul camion. te lii donc booy sëlmu ci ngay doog kon booy sëlmu sëlmu farata la. yéene farata la farata attan farata. mais ci sunna nga yéenee teg nga yow ci kaw deux siwo boo yéene a jàpp looy wax boo yéen a jàpp ci sa xol nga koy def ah, dangay ngay jublu sa xol ne fas naa yéene jàpp jaamoo ko yàlla xol fii rek nga koy jublu ci xol bi mm-hmm. Mm-hmm. foofu bu dee sangu bi noonu su dee koor gi da ngay yéene ci sa xol ne fas naa yéene wooru weeru koor yépp su yàlla dogalee nga feebar ci diggante bi boo boo wéree nga yéene waat yéene bu njëkk ba yàqul Muhammad nee na innamal a'maalu binniyaat wa innamaa li kulli imri maa nawaa. te yéene bi doo ko wax ca kaw doo ko biral. jaadu ko boo ko fàttee xol bi rek. pour boo ko fàttee bàyyi nga farata. soo demee ba sangu ba pare sangu ma yàqu la. ah bon bul déglu nag ki naan la ba nga jëlee sa télé ba la yéene ba dugg fu mu dugg man ngaa jël sa dem wanag tuur wanag te yeggu ko ca wanag wa. oustaz oustaz ngeen mën naa saw te yeggul wanag. déedéet mënul nekk.